dama leen demandé invité a Akhenaton quoi kooku kooku li muy wax dafa sénégalais yi dafa dépassé sénégalais yi sax quoi <laughs> li ngay wax sénégalais yi xamuñu ko ah, bilaay walaay man xam naa xam naa la bu baax dama la yàgg topp yàgg na na waaw dëgg la ñu ngi lay jaajëfal combat bi Sénégal a tax nga doon xeex man man benn benn jour laa la mës a mere quoi mm-hmm. mooy bi nga toogee Euh, Sénégal invité la Mouhamed Diallo nga bañ quoi maanaam yow boo demee ba sénégalais accepté la. sénégalais accepté la rek. waaw sénégalais accepté war a hmm. ñëw quoi. parce que ñoo la doon saaga ñëw ba dugal seen biir. kon yegg si nga quoi. dëgg la waaw yow waxuma la ensemble mais sax conseiller nga war a doon pale quoi. mais sans bi nag nationalisme laa quoi man dama eh. dama la koy wax quoi. patriote nationalisme. <laughs> waaw u suñu dëkk faaw ñu defar ko. non non sonn nañ ci sonn nañ ci kaaw bi sonn nañ ci àdduna bi fu ñu dem dañuy laaj papier frontière bu ñu bëgg a dugg dañuy am Sénégal fu bëgg a ñëw bëgg a dugg gratuitement. loolu instant bii nii. mënuñu développer Sénégal sans pour autant ñu am ñu am ay règles yu fixe ñu am ay règles yu fixées sur une politique d'immigration comme ni ma ko waxee woon. d'immigration def nga ci débat bu am solo. dama sama paase yow laa publier yow laa mujjee publier il faut pas avoir peur. damaa ne il faut avoir le courage. de mënoo mënoo mënoo soppi réew te amoo fit ah. réew fit moo koy soppi ñu soppi seen réew yi général de Gaulle Hitler Churchill uh-huh. euh, mm-hmm. euh, Lénine euh, Mao Zedong réew mm-hmm. fit moo koy soppi fit ak bëgg sa réew da ngay il faut pas mm-hmm. immigration bu ñëwee Sénégal ñun dàq ñu kenn bañu ñu kenn parce que Sénégal yaa ngi fépp mais da ngi ne kuy dugg ci réew mi na nga fi dugg ci réew mi na nga fi dugg ci ay jàng su loolu amul yoon daf la may nga tok fi trois mois pas plus. mënu ndax bu libre circulation hmm. ak libre installation. la circulation hmm. est libre mais l'installation est conditionnée par des lois internes boo bëggee tok hmm. Sénégal wala un pays membre de l'UEMOA nga joggé Mali wala nga joggé Niger wala nga joggé Gambie wala nga joggé Guinée wala nga jóge foo mënti joggé Burkina wala Bénin vous on mhm. installé au Sénégal droit Sénégal librement sans problème mhm. parce que c'est la libre circulation mais si vous nag installé au Sénégal dëkk fa il faut nga vous mhm. il faut nga signaler il faut que am am conditions il faut nga a wala ngay jàng adresse adresse nga am ko ñu mën la mm-hmm. identifier yow pour mais da nga soit pour am nga da ngay wala da ngay am nga euh, stabilité ñu defal de mm-hmm. séjour nga renouveler chaque année bu am Sénégal trois mois pas plus en tant que quelqu'un issu de la zone CEDEAO mais après trois mois da nga war c'est ça la réglementation

politique du Sénégal di au Sénégal bu ko à ci ab Burkina bi Burkina bi na ko Sénégal ba nekk Burkina mais là, man je suis pour mais day tax Sénégal am stabilité Burkina Faso am stabilité de Guinée am stabilité Mali am stabilité ci wàllu immigration ndax dañoo une politique d'immigration dañu ubbi frontières au niveau de la CEDEAO pour la libre circulation des personnes et des biens libre circulation des personnes et des biens ne signifie pas libre installation il faut qu'on ñu xam c'est différent donc voilà loolu laa ci doon dolli rek di la ko ñaambasale di wax ne daañu ci dikkaat incha après les élections vous savez yàlla ñu focus ci le 17 bi ñoo ko bokk ñoo ko bokk Ahmed macha allah am na solo respect à toi ah, merci à toi aussi le respect réciproque merci beaucoup jaajëf alors on va prendre qui encore euh, actualité du Sénégal allez wala Talibé Cheikh la ba je sais plus. non imam. actualité allez-y waay waa ñëwal. waa imam maa ngi lay ziar. delloo ziar. naka xel may. ñu ngi lay eh, man dama dama yàgg topp say discours ak say live. man mën naa ne depuis deux mille dix neuf boobu ñu bari xew dëgg la. mais nga nekk koo xam ne du da nga far fenn teel a wax dëgg quoi. dëgg la. loo farfar fii bu dëgg joree da ngay dut foofu baaraam wax fa dëgg gi. loolu nag nekk loo xam ne dama la ci naw te it dafa raar ci projet bi li ñuy wax projet bi. Mhm. parce que bëri na ñuy def live bëri na ñuy def euh, TikTok nekk ci Facebook mhm. yi. Mm-hmm. mais xam-xam bi ngay wax sur mm-hmm. plan international mm-hmm. eh, ci wàllu budget bi nga ñëw toj ko leeral ko loolu man gisuma ko Pastef amu fi dëgg yow pour man projet bi daf la soxla woon nga nekk Sénégal bu yenn journaliste yu mel ne Yirim sekk wala ñeneen ñi nga xam ne dañuy lëndëmal yow nga dem toog ci plateau yi toj ko leeral ko luñ samp nga sempi ko parce que loolu dafa raar ci projet bi ah y a des gens yu bëri wax lu ñuy wax mooy Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko c'est mhm. que focus genre discours yoo xam ne mënul continuer mënul durer deux ans parce que tamit il faut réew boo ko yoree ngay wax ci xam-xam parce que gars yi ñu ngi woote jub jubal jubbanti te am nañ yéene liggéey mais jot gin amoon pour di def politique léegi amatuñ ko dëgg Sonko mënatul toujours muy génn jomaay mënu ko yenn certains ministres yi mënuñu ko parce que seen liggéey mayu leen ko. dëgg la kon tey projet bi dafa soxla ay nit yoo xam ne dañu am fasaa am kàddu bu ba pare am xam-xam. dëgg la mais tey bon bugguma tudd tour mais am na si plateau yi boo xoolee ña fay dem di défendre projet bi. Mhm. xamuñu dara ci wàllu finance. xamuñu mhm. dara ci wàllu droit mais loolu c' mais loolu c' est grave. ah loolu bu yàggee dafay détruire image su projet bi. dëgg bu yàggee waaw. bu ah, yàggee waaw bu yàggee parce que loolu mënul continuer. Untuk ta continuer non il faut Macky Sall loo ko bañ bañ lu mu saay saay saay saay amoon na ay quelques borom xam-xam yoo même bu sax ñu honnête mhm. dem si plateau bi di défendre di ko c'est ça di layel layal di layel di layel c'est ça mhm, c'est ça dëgg la mais à part ça euh, euh, euh, imam bëggoon naa laaj mhm. benn affaire ci wàllu droit ndax président Macky Sall bu ñëwee Sénégal na day campagne loi bu mën a ñu war ko mën a ci yoon comme ancien chef d'état la lu mel gis Sénégal Mm-hmm. waaw lu mel noonu bëggoon naa bëggoon naa xam après nga gën ñu ko leeralal. Mm-hmm. ndax état am na fu mu mën a sukkandiku pour topp Macky Sall. ancien président la république lenn lañ ko mën a ci loi yi mooy haute trahison. haute trahison. haute mm-hmm. kenn waxul ne lii la. kon ñi nga xam ne ñoo koy accuser ñoom ñooy hmm. jàpp ne lii ak lii haute trahison la topp ko ci. haute hmm, hmm, trahison dafa am ñi ko war a àtte ci assemblée nationale la ñu fàggoo ne ñoom ñooy àtte haute trahison su ko président defee. ñu ngi koy àtte ci bërëb bu ñu tuddee haute cour de justice. haute cour de justice boobu day am ay député am ay magistrat yu ñuy taxawal mm. ñoo koy taxaw day am ay juge mm. ak ay député yoo xam ne ñooy nekk membre haute cour ñooñu ñooy enquête ñooy daan wala ñu bàyyi nga dem haute cour boobu mm. ci assemblée bi lañ koy taxawale constitution bi daf ko prévoir mais bëggoon naa laaj comme dañu tas assemblée bi nii assemblée amul est que kon président Macky Sall bu dikkee rek gars yi mën nañ ko jàpp wala loolu mënul ne. mën bu amee du tegu ci yoon. xam nga xam nga jàpp bi Mm. dafay xam nga dafa xam nga lépp loo gis dafa am mise en accusation dafa am accusation mm. kii accusé taxaw ba xool ne lii Macky Sall def haute trahison la kooku day mm. déclencher benn procédure moo xam procureur lay nekk procureur de la République wala mu nekk le procureur du parquet financier ça dépend ñoom ñooy xool ci li ñu koy topp ci wàllu bu fekk dañu jël li nga xam ne mooy budget bi nañu ko luubalee budget bi Ousmane Sonko ko wax xam nga tudd na ko ci nen na Macky Sall xam nga loolu tey bu subaa su dee cëpp tànkam Sénégal bu neexee président Bassirou Diomaye Faye mu jàppalu Macky Sall téye ko ci ci wàll woowu ne na leeral jël dossier bi jox ko ñu téye ko ñu ubbi enquête d'accord def ay enquête am def ay instruction ñu téyandi ko en attendant dem élection am mhm. assemblée bu taxawal haute cour de justice d'accord procureur du ko àtte mhm. mais mën na ki def enquête mën na ko téyandi parce que moom moo am l'opportunité de poursuite. Poursuite. yi mise en accusation poursuite procureur moo ko def pour parquet financier le procureur de la République ñoom ñaar ñoom kese ñoom ñoo mën a déclencher la procédure Mais nag duñ ko àtte ñoom d'ailleurs procureur du àtte rôlam du doit rôlam mooy jàpp accusé jox ñu enquête jébbal justice mu àtte fii nag justice du àtte haute cour de justice mooy àtte am na ay magistrats yu fa nekk ak ay futurs députés yu ñu war a tànn moo tax élection yi dafa am solo atte biñu wara war a atte atte bi ñu atte Macky Sall suba dafa aju ci ñu am majorité ci assemblée buñu ko amul duñu am haute cour de justice Macky Sall di rëcc loolu na ko sénégalais yi xam dafa rey ay nit. ah sàcc suñu alal non mais non mais imam nak mom aw ma sik ma sikk sàkk ne eh, gars escort bi am ni ci élection yi passé mhm. ci 6 mois yaakaar naa yokk laay xalaat mais xalaatu Sénégal yi xanaa. ah nañu teewul noonu Macky Sall ah. lu fi def pendant 12 ans. yemu ci mu ñëw ànd ak Karim Wade nga xam ne si mook mook papaam deux mille ba deux mille douze lu ne def nañ ko réew mi hmm? ñu ne déet ñu indi Idrissa Seck bu nga xam ne lu ne Abdoulaye Wade accusé na ko ñu ne déet ak Barthélémy Dias ak bi nga xam ne dañoo trahir Sonko hmm? aha mais Sénégal yi nag bu ñu demee nag ba jox majorité ñële man moom bu boobaa moom ma génnee sama xel ak sama xalaat yi Sénégal xam ne réew mi liñ bëgg kenn xam ko waaw léegi nag pour man c'est impossible aussi xam mais xam nga yow dafa mhm. am dafa am loo umpale ba laaj na ko fii. Mhm. xam nga ma indi la ci ay tontu est-ce que li ma la ci indi ay tontu am na lu mu gindiku ci yow waaw wala déet. bu baax sax. léegi nag gis nga noonee mu amee ci. waaw bari lu umpale yow loo xam yow am na loo xam Sénégalais bari umpale ko ci projet bi. ci enjeu yi nii ma def ba faram fàcceel na ko ba nga xam yow. Mhm. da war a mhm. sol say dàll ñooñee nga xam ne xam nga leen te xamuñu nga faram fàccee leen ba mu leer loolu mooy tax victoire am a bi amagul. Mhm. dafa laaj man ma lay leeral yow ngay am koy leeral kenn ku ci nekk am koy ku muy leeral lu ko tax a jóg futteeku taxaw dem mhm. ca bis ba ñu def li ñuy may ndam bu ñu ba beneen tamit bëggoon naa ko laaj ci imam muy man action gouvernement bi. man dama ci gisul benn ministre boo xam ne dafay développer activité comme nu mu waree daal wala boog nga gis ko mu fees man loolu gisuma ko. vraiment ci tous les domaines. xam nga ñun. dafa loo mhm. xam ne Pastef da koo tëddee. Mhm. mooy Pastef booy xool benn moteur la avion la xam nga avion day am ñaar ba ñeenti moteur. si si. Pastef mooy avion boo xam ne benn moteur la am. Mhm. xam nga benn motoor bu paanee fekk avion baa ngi ci kaw jaww ji ba day am. dëgg la. avion buy naaw la yor benn moteur moteur bi Ousmane Sonko dëgg la. bis bu cagee musiba am na. <laughs> dëgg la de. nañ ci bàyyi xel. benn moto la am Ousmane Sonko loolu moo tax. boo ci boo tey jii Ousmane Sonko bu sañoon kenn du campagne bu ñu campagne du ñu gagné. loolu du garaaw ah bon ah, ah yow nee nga gisoo kenn koo fi gis keneen wax ma. ah, ah si ah dëgg la de. yaa yow yaa seetlu ba ne ci biir Pastef gisoo kenn ku fël kenn ku am envers. non ku mën a yëngu fa mu dëkk sax. na xam ne am na si ñoo xam ne sax nit ñi xamuñu fu ñu dëkk. loolu Sonko war di wir dafa war di ànd ak sagoom ndax bu moom bis bu bis bu sëkkat bis bu sojee musiba am loolu nag dafa garaaw couteau à double tranchant am na njariñ waaye danger la moo tax gisoo kenn gis nga xam ñun fi name ñëpp gisoo ci kenn ko mën a mm-hmm. sëkk génn ko ne ma ngay liggéey ca mm-hmm. base am am na base amu ci amu ci amul kenn non si si si amul kenn loolu nag ascenseur la ascenseur xam nga dafa mm-hmm. baax da bës ci bouton a rek mu yéegal ascenseur dafa gaaw waaye bu pa bu paanee nooy def ah xanaa nga jéem a jël escalier yi. bul dëkk nag 10e étage escalier 10e étage moom ba àggee potu ndox ngay ñaan potu ndox ngay naan moom ngay njëkk a naan may le ma potu ndox li ma wax nag jàllu muus na nañ ci bàyyi xel. mais mais imaam kon. mais imam est-ce que kon danger nekkul ci ku mel ne Diomaye bi mu nekkee président Ousmane Sonko tey en tant que inspecteur des impôts bi mu doonoon. Mhm. mu bàyyi lépp loo xam ne état la gouvernement la mu demoon occupé le même ne poste directeur général des impôts et de domaine xam ne du politique tay bu jomay essayé ñu né ah déssé na deuxième saa Sonko mais est-ce que timit Sonko ak jomay ak tout manam tay Pastef dara tuuti fi ñepp ngi ci gouvernement bi tay nan ñaan yalla réussir parce que réussir rek baax mais bu échec amé non légui lan moy légui lan moy solution. non dafa am ñaan mbir dafa am aspect politique ak aspect mhm. gestion ni gérer pays bi. waay. gestion pays bi bu ñu amee assemblée bi mënatuñu ñu échouer dañuy dañuy réussir.

voilà bu fatte nak man man du fàtte wu dara ñom ñaar dañuy and jall wala ñu and dem saaka jaay dem saaka jaay ndar <laughs> no inshallah di ñaan ànd ba pare imam bu gonna bu gonna wa Pastef mhm. Pastef dañu focus ci national rek muy Sénégal rek te dañu wara focus ci président bi imasam mhm. ak Ousmane Sonko international te loolu dama gis nga ci def liggéey bi am solo mhm. bane ñi nga ñi ni wax ay panafricanisme ay Franklin Nyamsi ñeneen wa Layes heure bu génnee dal ci ko président wala Diomaye la seule personne bu may gis mu répondre leen ci si sur Facebook wala sur internet yow la. dëgg la gisuma mhm. benn benn nit koo xam ne dina taxaw di défendre Sonko. Mhm. sur plan international wala Diomaye te loolu dafa am solo. waaw mais loolu dafa am solo trop trop parce que ñu ngi détruire Ousmane Sonko. di mhm. wax na kii dafa wor li mu waxoon defu ko. Diomaye bëggul Sénégal. français yi la jox boppam alors que loolu amul. xam nga loolu. xam nga wax nga ko ci biir réew mi ne gisoo kenn. ñew nga ci bitim rew tamit na gisoo kenn à part xay na nga ak yoon nga gis mu yéeg iya ci plateau yi ñoom ñam seeg ñoom ñoon leen parce que effectivement ñi ngi yàq ya sonko ak jobaay lu mel ne xeme si loolu man dama koy def en tant que sénégalais e. di ko def en tant que ku gëm projet bi di ko def jàpp ne man Ousmane Sonko sam ak jomaay e, sama ay nawle lañ man ñooñu jàppee mu leen ay man ñooñu sama nawle lañ <laughs> si effectivement voilà man Ousmane Sonko jomaay e, dama wuur na gënuñu ma bëgg Sénégal man loolu dama ko xam te man jombale naa sama bopp Ousmane ak Diomaye di ma ëpp yéene ci Sénégal di def ci Sénégal loo xam ne man mënu ma ko def Sénégal man xaaruma ay ndomba tànk ak ñi may fal pour que may liggéeyal Sénégal te défendre Ousmane Sonko ak Diomaye ci ay panafricains yu yàq seen der loolu non seulement défendre Sénégal la défendre projet bi la mais défendre sama ay nawle lañ parce que ñoo ànd maa ngi ñoom ñoo ànd loolu moo tax ma di ko def te xaaruma ci dara lu dul war koo def di ko def loolu moo la war yow kii ma yow mi déglu loolu moo la woon maanaam kenn ku ci nekk li la war waroo cee xaar Ousmane waroo cee xaar Diomaye waroo cee xaar ndomb tànk la nga war a def da koy war a def ca fa nga a defee am na loo xam ne laajul fekkee am nga xam bëgg réew mi mu dëgg mhm. ci yow nga ne patriote nga war ngaa mën a apporter projet bi ci défense boo ko amul ci xam-xam amoo ko ci xaalis amoo ko ci doole war nga koo mën a am ci làmmiñ défendre projet bi fu ñuy jéem a projet bi te ñu koy wax ñoom ñu xam-xam ay Franklin Nyamsi ay naatali yàqu mm-hmm. ñooñu amuñu xam-xam li ñuy wax xamuñu ko ñooñu problème bi ñu am mooy dañoo am fippu gu ñu bëgg fippu ci jaay doole ngir mën a moom seen bopp ñun ak ñoom ñoo bokk di fippu ñun dañoo fippu waaye façon fippun wi moo bokkul ñun dañoo mm-hmm. fippu ci démocratie fippu ci ay carte fippu ci jaayante am ñu tëdd ci bàmmeel yi fippu ci dem ci urne yi roof ci ay carte ba fal jomaay mm-hmm. ñoom amuñu googu fippu ñoom ay kalachnikov lañ jël fippu bëgg a changer seenum réew ci ay kalachnikov am nañ ki droit duñ leen jugé bu leen neexee ñoo xam ñoom ñu rayante pour soppi seenum réew ci rayante ñun rayante wuñu ñun dañuy dem démocratie dem ay élection si si parce que noonu ñu amee seen droit ñoom jël ay armes mhm. pour def coup d'état jugé wuñ leen ñu respecté bàyyi leen ñun noonu la ñu amee mhm. droit ñun dañu fi jëlee Macky Sall ci ay carte léegi ñoom lan moo tax ñu mhm. war ñoo jugé ñun lan motax ñu bëgg yak jomay ak Sonko lu mel xamé parce que jomay ak Sonko dañoo ñëw na ñoom ñi ngi ci biir yawo ma ànd ak ñoom ci loolu gëm ne cadre yawo cadre la bo xamné mënu ñoo am cadre bu ko gën ni mu ma lañ fay doxal baxna waye waaye gi kër gi xam nga kër. mën naa baax tabax bi baax macha allah waye ñu dëkk ci kër ga nek ñoo xamné la yàlla xam doone loolu bu amé do toj kër gi. da ngay fexé ba ñu nekk ci kër gi nga defal wo wax ak ñoom fexé ba ñu defaraat seen togaay ba dëkkin wi ci biir kër gi mëna mu ci ayib waaye yow ñu nekk ci biir kër gi ay bandi lañu ak ay wuyu nga ne nañu màbbal kër gi na kër gi toj anduma ci loolu CEDEAO cadre cadre de concertation la parce que li gëna jafé moy andando bu ñu xasse ba am fu ñu daje ànd fa du ñak hmm. ay jafé jafé ci biir andando bi waaye jafé jafé yooyu nañu fexé ba soppi ko ba mu dakk te man dama gëm ne palu jomaay ànd ak Ousmane Sonko dikk bi ñu dikk nekk ci bopp Sénégal loolu njariñ li du yem ci Sénégal dafay dem ba ci au niveau de l'UEMOA li nga xam ne mooy suñu français CFA bi njariñ li dafay dem ba ci CEDEAO parce que boo xamee CEDEAO ni muy doxee nga xam ne la mhm. conférence des chefs d'État ñoom ñoo am les décisions politiques ñoom ñoo koy jël à mhm. l'unanimité les pays membres de la CEDEAO seen chefs d'État yi ñoom ñooy jël dogal te bu ñu koy jël ñoom ñëpp dañ ciy d'accord pour dogal bi jàll bu ci amee kenn ku opposé wu dogal bi du jàll waa ñun Sénégal ñuy xeex ba fal jomaay ci ndimbalu Ousmane Sonko ñu xam seen patriotisme ak seen panafricanisme xam seen xeex pour que nit ku ñuul naka la war a mën a moomee boppam ñu xam loolu te amuñu ci sikk sàkk ñii bu ñu leen indee CEDEAO dogal bu ñu jëlati CEDEAO te nekkul ci intérêt africain yi jomaay day teg veto automatiquement nag ànduma ci dogal bi te bu ci tegee veto dogal bi du jàll. kon tey ñun Sénégal xeex nañu ba indi CEDEAO benn veto droit de veto.

bëgguñu ñëw bokk CEDEAO comme ñoom ay pays yoo xam ne ña fa nekk dañoo def coup d'état te CEDEAO dafa am ay sart yoo xam ne boo dikkee danaan la deux ans ou trois ans da ngay organiser élection te ña fa def loolu. c'est parce que ne ñoom. naa c'est parce que loolu rek mooy seen intérêt. waaw loolu mooy problème bi parce que ñoom dañoo fas yéene toog bi ñoom CEDEAO arrangé wu leen. xam naa loolu et puis ñoom ñi ngi diaboliser CEDEAO nit ñi ay jaamu tubaab bi leen amul. fi àddina toll ñun africains yi dañu soxla jàppante dañu soxla àndandoo xeexandoo boo demee Europe Union européenne bi gis nga nu mu amee doole. mais xam nañ ñu ko nasa yëpp. loolu yëpp xam ko moo tax cadre bi mais pourquoi ñun Afrique mu mënuñu am loolu parce que ñun fii nam xeet bi la boo demee Mali sant yi ngay gis fii moom nga fay gis boo demee dëkk yëpp benn la. daañu ci dikkaat man jàpp naa ne jàpp naa ne man Pastef war naa am benn cellule de communication boo xam ne national et international dañ ko war a taxawal dugal fa ay borom yi xam-xam yu mel ne yow ak ñeneen. Mhm. bàyyi ñi nga xam ne ay waxu dof la ñuy wax ci internet bi. Mhm. wax yoo xam ne tekkiwul dara wax yoo xam ne ay ay ay kii la yooyu amul benn solo. yii mhm. ngay def mooy xam-xam. su su président Diomaye waxee xam-xam nga ñëw toj ko leeral ko Sénégal yi ba mu leer. vraiment man dama lay dama lay féliciter dama yàgg déglu sa waxtaan mais borom xam-xam nga xam-xam bi xam-xam bi leer na des fois nag. nga nekk patriote des i imaam ñëw daal ci kaw gars yi du la arrangé.

yéen a ngi ku ne a confirmé les propos du FMI oui oui c'est ça effectivement loolu moy lan lañ ciy tiit ak njàq rek mooy chiffres yeeg non non non FMI mom intérêt moy mu séq ak ay état yu transparent parce que ñoy dougal xaliss ci réew mi banque mondiale di lebale xaliss partenaires techniques et financiers bilatéraux yi di lebal Sénégal xaliss li ñu jub nga juboo ku wóor nga wóor est-ce que am naa ci yow confiance kóolute pour lebal la kon bu Sénégal ñëwee ak Jomaay Sonko ne ñun dañoo dox ci jub ak jub ak jubanti dañuy indi lu leer kooku banque moo ak FMI dañuy kontaan ñoom loolu donc li dañ lay jàppale parce que daal continuer waaw dama doon répondre actualité mm-hmm. actualité mooy ki duggoon léegi léegi actualité mm-hmm. léegi patriotes yi dañu war a dépasser benn niveau mm-hmm. maanaam waratuñu xaar Sonko Jomaay génn ñu doog a communiquer. Mm. on communique en avance. instant da nga war a nekk ay ambassadeur u Sénégal maanaam fépp fu ñu dem ci àdduna bi. fépp ci mm-hmm. communication bu ñu mën a adapté. dañu mm-hmm. war a communiquer. te mm-hmm. affaire AIS bi ak affaire affaire géopolitique bi instant yi dafa bëri ay acteurs yu ci joué dafa bëri manipulation. dafa bëri manipulation moo je préfère ay Akhenaton di si wax parce que au moins posi xool leen position au Sénégal jël dafa ne man je travaille avec tout le monde maanaam ci digg bi la nekk mais yow boo ne kii laa faral wala kee laa faral alors que kee dafa am ay intérêt ci ginnaaw loolu nga ne da ngay dàq France indi Russie ngay collaborer Russie kase dafa mel ni mhm. yow li nga def c'est la même chose mhm. mais Sénégal je vous muy jouer maanaam je parallèle bi kii laay waxtaanal kii laay waxtaanal samay intérêt ñoo nekk ci kaw euh, mhm. am position souveraine. Mhm. bu contrebalancer. ñu dem si yamal ñu sénégalais ci waxuma sax ay mhm. sénégalais de manière générale ñuy ambassadeur projet Mm-hmm. ñuy ambassadeur président Diomaye ñooy ambassadeur seen 17 millions de population yi nekk fii ñii waratuñu mm-hmm. xaar information bi di ñëw buy mm-hmm. jugee si gouvernement bi wala muy jugee si ñeneen ak ñeneen dégg am nañ information bi xam nañ nan lañ ko war a traité xam nañ nan lañ ko war a analyser dañ ko war a gën a fësal waaw loolu laa bëggoon wax c'était pour pas buy côté côté kii bi nag élection bi ah sama gars yi On a tous vu ce qui s'est passé. dañ doon campagne génn ci àll bi man nag loolu bay naa sénégalais ak seen xel ñu commentaire si waaw. imam hmm. dëgg la am na solo macha allah. sénégalais ils vont réfléchir yaakaar naa dégg nañ li nga wax daañu ci xalaat c'est lu am am solo la macha allah am na solo merci beaucoup my voice. am na solo donc taalibe way vas-y. Euh, euh, maa ngi maa ngi lay maa ngi lay siyaar baax. di euh, rafetlu jotaay bi di wax na jotaay bi am na solo donc daan naa la suivre bu baax. Mm-hmm. maa ngi suivre tamit sa intervention yi donc suivre naa tamit ñi fi dugg ñëpp wax donc wax ji am na njëriñ trop trop trop mais sama contribution. Mm-hmm. dama koy indi ci benn côté mooy que euh, Olof Ndiaye dafa am lu mu wax. Mm-hmm. dafa ne nit ku nekk lu mu am loolu lay loolu lay duggee marché. Mm-hmm. donc sànq par rapport synthèse bi waroon def donc euh, yamuñu ak yeneen dëkk yi nga xamante ni dañoo def coup d'état certes dëgg la parce que ñoom peut-être moyen boobu lañu am parce que nguur yi fa nekkoon dañ doon tripoter constitution bi donc am fa benn système bu ñu fa teg boo xamante ni il fallait impérativement faire un coup d'état pour peut-être euh, mën a ñëw au pouvoir te jàpp naa ne tamit euh, dëkk yi nekk AES mhm. donc yaakaar naa bu fekkoon accession Diomaye yi na avant leur coup d'état yakaron na ñom duñu bëru voilà peut-être ñom ñoo ñu njëkk ñëw au pouvoir par la voie des armes donc marqué ay euh, sen ay empreinte wala bok ñu jël yenn position yi donc pour ñu revenir at pour duggaat bir cdao peut-être euh, bu fekkoon dañ ko defoon mm. avant Diomaye do nek président yaakaar naa duñu bëru mais euh kon sensibilisation bi communication peut-être euh, bientôt ou bien dans quelques années peut-être ils peuvent revenir à la raison parce que c'est bi kon ni nga waxé sank rek kër la lii nekk ci biir kër gi nan nit ñi fa dëkk ñoo koy def. Mm-hmm. donc donte euh, soo nee nit ñi fa dëkk nañuy doxee baaxul wala boog dañuy sàcc wala dañuy màndi rek kër ga baaxul dañ koy màbbal donc loolu moom boo ko defee mooy daanaka du quartier du am kër gu nekk dafa am nu lii tamaate ci biir kër gi bu la neexee nga toj ko peinturaat defaraat indi ay règle waxtaan donc loolu moom mooy njëriñu décision bi président jël moom mën a rester dans la dans dans la CEDEAO ba pare xeex li mu war a xeex mooy xeex dëgg bi donc loolu moom lu ñëpp di magnifier di ko rafetlu donc man mom dessus de tout cœur ou bien par rapport ak ni nga waxee sank je suis à 200% par rapport ak ni nga wax def donc sensibilisation nañ ko yok wo suñu ay mbokk africaine ne leen nañu nañu nañu xalaataat bu baax yaakaar naa génn di créer lu bees loo xamante ne yow rek yaa ci nekk amul benn impact amul benn njëriñ sur le plan géopolitique lépp solo mooy lépp lu ñuy xeex ak lu ñuy yuuxu ak lu ñuy kaas nañ dugg ci biir structure bi ñu mën ko yëkkat kaasandoo ñun ñëpp lepp loo xamante ne baax na ci population kon ñu ko jàppee parce que CDAO ñëpp dañoo constaté que ne CEDEAO structure des présidents la donc décision yi ñu fay jël président il a arrangé arrangé le peuple peuple peuple africain bon. donc suñu fexee ba ba jooyanti loolu fexe ba décision yi jël mu des décisions majeures yi impacté la les populations mm-hmm. yaakaar naa ñun Sénégal Mali Burkina Faso ak Niger ak yooyu suñ ko àndandoo lëkkandoo di ko xeexandoo xool fii dëkk rek nous faisons nous faisons fay ñu fay ñu mm-hmm. d'ici peu de temps on na affaire yu bari au xamante dinañ ko mën a joyante ñenn ñi nga xamante ni ay pion lañ parce que CEDEAO soo xoolee li fi nekk san daan ko décision yi euh, li si ëpp li si ëpp Sénégal ak Côte d'Ivoire ñoom ñoo am ay droit de veto. Mhm. donc ñaar ñooñu lu ñu déggoowee rek presque yeneen dëkk yëpp dañ leen di suivre. Mhm. donc ñoom ñaar tamit dañuy góorgóorlu ba ancien chef de état yi fi nekkoon lépp luy décision di am dañ ci daan déggoo mooy kon ni li nga li nga wax sànq kon Macky Sall moom euh, li ma daan déggoo ak Alassane Ouattara di ko di ko di ko di ko di ko plaider biir CEDEAO mooy li arrangé tubaab yi. donc lu ñun léegi ak amatul yaakaar naa ne tey su ñu fekkee Sénégal dafa reste si biir CEDEAO euh, yeneen dëkk yi ñëw rejoindre ko donc dina mën a permettre lu bari dinañ ko mën a joyanti donc loolu lu ñu war a lu ñu war a liggéey la mm-hmm. lu ñu war a liggéey lu ñu war a liggéey la pour sensibiliser leen pour que ñu dellu si waat mm-hmm. mais beneen bi mooy lii soxal suñu dëkk muy élection yi ñu jëm élection yi ñu jëm man man man awma ci benn awma ci benn problème man li may am problème rek moy que ñi wara nek ci li ci nek ci. pour que ah. suñu démé à l'assemblée mëna représenter. Ah peuple bi loolu kese moy mooy sama problème. mais pour gagner les élections voilà casting bi faxee parce que euh, gis nga euh, sëriñ bi. Mhm. ñun ñep buñu ñu man mi di wax yow ci parti bi la bok mhm. nek responsable. mais Ousmane mhm. Sonko ne peut pas tout contrôler. Mhm. am nous loo Ousmane Sonko gor la. Mhm. jël ay nit jox ko ñooñu jox. Mhm. copinage affaire am na ñoo xamante ne. war voilà Nous xaar ñu nekk ci biir parti bi yor man carte parti waruñu bokk ci benn section pour ñu fal dimension ak savoir faire ak savoir être. daf leen Nous ñu dem leen ñu

lu lu muy und mooy li Seydina Omar amoon nekkoon euh, xalifa euh, yonent bi mhm. jëloon benn waaye boo xamante ne da ko fay ne ko saa yoo xëyee suba ñëwal fekk ma ci biir pale bi wax ma dëgg mhm. Mhm. daf lay permettre yow mi ñu nekk ci nguur yow mi yor nguur nit kooku nga dooleel ko ba nga xamante ni fu dëgg nekk dina la ko indil parce que lii suñu problème gu gouvernement yi mooy que da ngay dem ba à un certain moment dañ lay nëbb dëgg yi Mm-hmm. c'est ça c'est ça comprendre nga. Hein? Mm-hmm. donc ce que je wax dire, c'est bi je ngi jëm euh, conception ou liste si conception ou ni yi ñi koy responsabiliser ay de la et ay copinage la ñuy def. Mm-hmm. c'est dangereux parce que ça loolu devait une rupture entre le le sommet et la base. Moi personnellement loolu combat boo xamante ne la képp ku ci nekk da nga ko war a xeex pour que lépp li war a jaar yoon ñu war a jaar yoon Akhenaton nekk assemblée wala ku mel ne Akhenaton nekk na assemblée assemb Akhenaton ñëpp xam nañ position am position nekk pour nekkul position boo xam ne da koy da koy am pour pour neex ni ñi. Mm. mais euh, lépp loo war a jël décision di nga ne man de ah man de su ma jëlee décision bi su ma fa fekkee Akhenaton de duma ci bàyyi. te mm. kilifa moomul. chaque jour mu naan maa ngi tuub di jéggalu. Mhm. donc da fay bax ak ñu mel ni da fay bax ñu nek assemblée pour mën di toog suñu d'accordul ne la d'accord ma. Mhm. donc lolu décision ou bien euh, xalaat bo xamantene la ñun ñëpp dañ ko wara am. Mhm. pour di alerter à temps parce que so xasse ba fal nit ki fal nga ko pour juróomi at. te mënatoo ko fi dindi sank démissioné wul donc li ñu wara a góorgóorlu mooy falin bi ñuy fexé muy jaar yoon bi pa nak peut-être mën nañ ko layal parce que euh, c'est des élections anticipées mais mm-hmm. le parti tamit de waroon na jël ay devant yo xamantene dina permettre ñu def ay primaires dans toutes les zones pour que képp ko xamantene ne da nga wara candidater ñu may la nga dugg may tamit population bi ou bien les partisans ne ñom d'accord ni ci candidat ou wala candidat donc loolu laa noonu naa si participer di rafetlu bu baax jotaay bi di déglu tamit suñu waree intervenir at donc par rapport au beneen sujet ñu mën a intervenir maa ngi tudd bu baax di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu macha allah macha allah sa xalaat yi am na solo li ñaan aussi kilifa yi dégg ko bàyyi ci xel parce que am am euh, réew moom boo ko jiitee euh, dana bari ñu bari dañ lay xalamal dana bari ñu bari dañ la tagg dañ la jey dañ la wax lu ne waaye uh, loolu mënut a ñàkk ndax ku jiite am réew dafa diis diis goo xam ne da nga soxla ñu lay jaajëfal da soxla di gis say ñoñ ñu ànd ak yow ñu lay tagg di la naan waa góor loolu lu neex la ci nguur waaye tamit uh, da war a am ñu naan la attention déet déet tey a <laughs> tànk defee ko nii moytul lii déedéet d'accord ma ak yow nii nga ko xalaatee parce que uh, voilà mënoo xam lépp moo nag fépp ñi ñi lay moytuloo nag dañu nekk ñu sincère nekk ñu honnête nekk ñoo xam ne yow da lay na ñi mooy lu jëmaay dafa naa moo jëmaale ko waxoon nee na nit koo xam ne mi wax ci Sonko ne koo xam ne dala bëgg na la ba nga xam ko am na yéene ci yow ba nga mm-hmm. iñaanewu dara ba nga xam ko euh, kooku euh, lépp lu mu la wax da ciy bàyyi xel dafa naa bi mu wax ci Sonko Sonko wax loolu xam nga loolu boo demee ba am yàqin ci nit ki ci yenn ci yooyu li ci des rek mooy di ko ko déglu ci ay xalaatam loolu lu am solo la wax jooju mu wax wax ju am am solo la ko loolu nag njiitu réew bu ne danga koy soxla ndax njiitu réew bu nekk ku ci yàqule la la mhm. yàqule sa nopp moo tax li la yàqule ni ci sa nopp la jaar dugg nopp effectivement nopp moom mooy lu amul kubéer te boo yoree am réew da nga déglu mhm. ne waaw ci sa kaw nag àndul ak yow di xëccoog yow di xuloog yow kooku li ngay jàng ci moom mooy ak palu taxu koo jëkk ndax ku bëgg a nguuru doo doo doo xëccoo gis nga ñi bëgg ñi a nguuru ñi ñi ñoom loo wax ñu ne gonga ñooñu ñoom seen poste la sàmm ñooñu ñoom ñëw ñëpp dimbali la poste bi la ñuy sàmm waaye kii xeex ak ngir nga mën ngir nga bañ a ngir nga am ndam kii kii xeex ak kooku xam nga fàtte post bi ndax bu ndax bés bu nekk mën nga ko daal. effectivement kii xeex ak yow nga am ndam kooku xam nga du poste bee ko yitteel waaye dafa bëgg nga am ndam. <laughs> ki bëgg nga am ki bëgg am ndam bay xeex ak yow kooku du poste bee ko yitteel waaye ki poste bi yitteel moom du xeex ak yow kooku moom même booy dugg ci pax danaan la pax mi dana néew di dugal. loolu loolu loolu daloon ñu fi jaar ñëpp. voilà ku fi ja ku fi yàqule loolu moo la yàqal ku fi yàqule. xalamkat yeeg waykat yeeg ñi lay tagg naan la yow.